الحب اللي عمره ما يشمت asalaamaaleykum mbokki déglukat yi seen mbokk seen xarit pasteur Ahmed Fall moo dellu siwaat ak yéen ci sunu émission kàddu gu sell gi te di leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di dellu di sant yàlla sunu boroom ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist
آه asalaamualeykum mbokki auditeurs yi mbokk yi ñuy déglu fii ci sunu émission kàddu gu sell gi man seen mbokk seen xarit seen doomu ndey pasteur Ahmed Fall ma dellu siwaat ak yéen ci sunu émission kàddu gu sell gi ñuy sant yàlla sunu boroom ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist bi mu ñu mayee ñu tal ko ba teew fii te di ñaan lépp li nga xam ne danañ ko fi wax mu doon yokkute ci ñi koy déglu ak ci ñun ñi nga xam ne ñoo koy wax ma leen di fàttali nag ne sunu émission kàddu gu sell gi ñi ngi ko lal ci téere bu sell bi ñu yàlla sunu boroom jox muy biibal bi di leen fàttali itam mbokki auditeurs yi ne képp koo xam ne bëgg nga ko am sotti nañ ko ci ay làkk yu bari boo ma woowee walla nga bind ma ci numéro téléphone bi ma leen di jox bu may tëj waxtaan wi bu boobaa danaa la dimbale ba ngeen am ci yàlla sunu boroom daf ñu wax ci téereem bu sell bi ne mbind mi yépp ci moom la jóge te daf ñu ko jox ngir jàngal ñu ngir jubbanti ñu ngir yedd ñu ngir yee ñu ba nga xam ne danan jekk ci bépp jëf ju rafet yàlla sunu boroom nag ci téereem bu sell bi am na ci ay jëmm yoo xam ne da leen tudd wax seen jaar-jaar mu doon loo xam ne daf ñu ko indil ngir am lu mu ñu ci jàngal ñun jaam yi am ñoo xam ne li mu wax ci ñoom bari na am ñoo xam ne itam li mu wax ci ñoom lu gàtt la lu tuuti la wante lu am solo la tey jii nag dañuy tijji ci kóllëre gu njëkk ga ñu koy wax ci nasaraan ancien testament tijji ci xaat bi ñaan ci nasaraan chronique boo leen déggee nag chronique ci baatu tubaab buñ koy tekki maanaam mën nañ ko tekkee ay nettali maanaam nga jël dundu nit wala askan nga koy nettali seeni jaar-jaar chronique boobu nag ñu mën a tekkee ci nettali ñu ngi ko toftal ci xaaj bi ñu tuddee buur bi njëkk ak ñaareelu buur ci téere bu sell bi ci biibal bi ci ñëkkeelu chronique nag ca aaya ñeent ca saar juróom-ñeent ba saar fukk yàlla sunu boroom day tudd foofu benn waay te la muy wax ci moom bariwul nag benn yoon boobu rek la yàlla sunu boroom wax ci waajooju tudd turam yem fa wante wax bi wax bu xóot la wax bu ñu mën a bàyyi xel la ndaxte njariñ ga bari na yàlla wax ci benn chronique bu njëkk ci aaya ñeent ci saar juróom-ñeent ba fukk mu tudd waa ji naan yabets mu ne yabets lañu gënoon a naw ay rakkam ak ay magam yaayam tuddee ko woon yabets di wax ne ci metit laa ko juree yabets ñaan yàlla ne ko boo ma barkelee yokk sama nekkuwaay boo ma yiiree ak sa yërmande te nga soril ma naqar ba nga xam ne duma dund ci metit yàlla nangul ko ñaanam loolu mooy li nga xam ne yàlla sunu boroom indil nañu ko ci waajooju tuddoon yabets yàlla wax ci moom te ñaari saar yooyu képp la wax ci waa jooju mu ne yabets moomu moom lañu gënoon a naw ni ay magam wala ay rakam te tur boobu yaayam moo ko ko tuddee woon ndaxte yaaya ngi yaayam a ngi daan wax naan ci metit laa ko juree yàlla nañu yabets boobu nag ñaan yàlla ne ko boo ma barkelee yokk sama nekkuwaay yiir ma ak sa yërmande te nga soril ma naqar ba nga xam ne duma dund ci metit yàlla teg ci ne moom yàlla nangul yabets ñaanam googu ci téere bu sell bi tur yu bari yoo xam ne dañ leen ni fekk ci téere bi ci biibal bi dafa am lu muy tekki day am lu mu wone ci waa ji wala mu wone ci jukkoom wala mu wone ci ëllëgam wala mu wone boog ci askan ba mu jóge tur lu ci ëpp ci biibal bi dafa am lu muy tekki am lu muy wone ci boroom tur gi yabets boobu nag yaayam ne kat dama koy tuddee yabets nga xam ne day tekki boroom naqar wala ki sonn ki yaayam ne dama koy tuddee tur googu ndaxte ci metit ci naqar laa ko jure loolu dañ koy faral di gis ci sunu dëkk yi da ngay gis nit mu juddu ñu tuddee ko amul yaakaar am na lu waral tur googu nga gis nit juddu ñu tuddee ko yaa dikkoon am na lu waral tur googu nga gis nit juddu ñu tuddee ko sën am na lu waral tur googu nga dem ci sunu mbokku séeréer yi nga gis nit juddu fa ñu tuddee ko mbone maanaam ki tekkiwul dara loolu am lu muy tekki am loo xam ne waajur yi dañ ci jublu moo waral ñu tuddee seen doom muy bu góor muy bu jigéen tur yooyu nga xam ne yi ma lim sànq da ngay gis nit juddu ñu tuddee ko guuñ amoon naa xarit goo xam ne guuñ lañ ko tuddee woon dañuy faral di gis nit di tudd amul yaakaar nit di tudd yaa dikkoon nit di tudd mbone yaayu yabets nag ne tuddee naa ko yabets loolu di tekki naqar wala goog metit gu tar boroom naqar boroom coono boroom metit yaayam ne ba ma koy ëmb jur ko dama ko jur ci metit dama ko jur ci naqar kon tur googu laa koy jox mu màndargaal xale bi ci ban anam la ganesee àdduna muy naqar gu gudd yaay ji nekkoon ak moom muy metit gu gàtt mu nekkoon ak moom ak nu mu mënta demee rek tur gaa ngi tekki ne yabets boobu mooy boroom metit di boroom naqar mu mel ne nag dafa màggeeg loolu mu mel ne naqar googu metit googu dafa màggeeg naqar googu màggeeg metit googu mu tax yàlla sunu boroom di ñu wax ne yabets moomu dafa tin yàlla ñaan ko ne ko boo ma barkelee yokk sama nekkuwaay te nga soril ma naqar ba nga xam ne duma dund ci metit wante balaa loolu di am yàlla sunu boroom mi ngi ñuy wax ca ba muy tàmbali saar bi mi ngi naan yabets moomu lañu gënoon a naw ay magam ak ay rakam maanaam féete ne leen kaw waa jooju ñu doon wax naan mooy boroom naqar boroom metit ba nga xam ne ñaan na yàlla boroomam ne ko soril ma metit ba nga xam ne duma dund ci naqar may ma sama nekk waayu yokk barkeel ma yiir ma ak sa yërmande yàlla nangul ko ñaan googu ne ko loolu nga ma ñaan danaa la ko nangul danaa la ko defal ba yàlla di seede ne yabets moomu mujj na féete kaw ñépp ba ñu gën ko naw moom yabets wante bu ñu xoolee ci anam ya mu juddoo bu ñu xoolee tur ga koy waayuram bu jigéen jox boo moytu sax ak njirim la ndaxte kenn tuddul baayam yaayama ko tudd yaayama ko jox tur ne mooy borom naqar borom metit gu tar gu metti yàlla sunu borom di wax ne waa jooju ñu tuddee woon borom metit borom naqar mujj na féete mbokkam yépp kaw te ba mu ñaanee yàlla ne ko soril ma metit yiir ma ak sa yërmande barkeel ma yokkal sama nekkuwaay ba nga xam ne du ma dund ci metit yàlla dafa ne ko nangul naa la ko danaa la ko defal yàlla sunu borom di ñu jàngal ci ñaari saar yooyu lu am solo dañuy nekk ci dëkk yoo xam ne jamono yoo xam ne dangay gis nit juddu mel melokaan goo xam ne buñ ko xoolee dañ ñaan kii kat yaakaar amatul ci moom wala nga juddu ci xeet wala askan woo xam ne dañ leeni ber boddi leen fii ci sunu réew Sénégal am na ci gox yoo xam ne boo fa demee danga fa fekk ay nit ñoo xam ne ay kër yoo xam ne dañ leen i ber duñu nekk ak nit ñi wala boog bu ñu demee ba mbooloo am daje am ñépp ñëw dañ leen i ber duñu bokk ak nit ñi lekk duñu bokk ak ñoom naan duñu am fitu sax génn seen kër dugg ci beneen kër bu ñu amee soxla ci yeneen xeet yi yeneen kër yi dañuy taxaw ca bunt ba duñu yegg ca biir dañ leen ni xof duñu teg seen tànk ci yenn kër yi bu mbooloo amee jotaay am xew am dañ leen ni yàkkal berleen bool ya ñuy lekkee wala boog kopp ya ñuy naanee bu ñu paree dañ koy sànni loolu dëgg la am na ci Sénégal am na ci yeneen dëkk nga gis nit juddu ñu jox ko ab tur goo xam ne ndeyam joxu ko ko baayam joxu ko ko wante askan wee ko koy jox mbokk yee ko koy jox xarit yee ko koy jox nit ñee koy jox mu doon tur goo xam ne da koy topp ba boo moytul mu yàq dundam ñu naan ko yow de ku weex dunk nga lu ñëw rek dal sa kaw yu mel noonu danga koy dégg ñu naan la ay gaaf wutal la tur goo xam ne day tekki ne cat moo la dugg nga juddu nekk tur tànk màgg di dégg tur boobu ba mu yàqal la sa àdduna wala nga bokk ci xeet yoo xam ne dañ leen di sikkal di leen xeeb di leen xeeb ba yow boo deful ndànk dangay jàpp ne daal lii la yàlla namm ci yow kon dangay wéy ak moom dund ko mu jeex yàlla sunu boroom nañu yabeet waaye ñu tuddee woon boroom daqar boroom metit nga xam ne ñaan na yàlla ne ko soril ma metit ba duma dund ci naqar barkel ma yokkal sama nekkuwaay yàlla ne ko nangul naa la ko yëkkati ko ba mu sut ñépp ba yàlla dañu seede ne yabeet su moomu lañu gën a naw ay rakkam ak ay magam ay mbokkam ñépp yabeet su moomu nga xam ne moo doon boroom naqar ba ñaan yàlla sunu boroom ne ko soril ma naqar soril ma metit yàlla sunu boroom dañuy jàngal foofu lu am solo yàlla sunu boroom dañuy wàngal ne ñun ay jaamam ñun ñooy boddi ñun ñooy sikkal ñun ñooy sikkalaate ñun ñooy xool nit di ko xof wante yàlla du xof kenn yàlla du sikkal kenn yàlla du ber kenn yàlla jaamam ju mu sàkk pareel na ko ëllëg goo xam ne ëllëg gu baax la xanaa kay jaam ji bañ a topp yàlla ba dugg ci loolu nga xam ne moom la ko pareel topp nafsoom def la ko neex wante yàlla amul kenn koo xam ne indi la la ci biir kaw suuf bi ba pare di la teg naqar wala di la jagleel lu métti moo tax mu ñuy fàttali waajooji nga xam ne moo doon yabeet te ñu wax ne moo doon boroom métit moo doon boroom naqar yàlla sunu boroom ne nangul naa ko ñaanam goog nga xam ne ñaan na ma ko kon mbokk yi ñu déglu tuuti cant balaa ñuy ñëw ci ñaareelu xaaju waxtaan wi kon jërëjëf mbokki auditeurs yi ma leen di fàttali rek tey jii sunu waxtaanu tey ñi ngi ko tënk ci waajooju nga xam ne yàlla tudd na ko ci téeréem bu sell bi ñu ko doon wax yabet boroom naqar boroom metit gu tar te yàlla mujj ko yëkkati ba mu féete ñépp kaw ba yàlla di ko seede yàlla di ñu wax ne waajooju boroom naqar boroom metit googu moo ñaan yàlla sunu boroom ne ko boo ma barkelee yokk sama nekkuwaay boo ma yiiree ak sa yërmande te nga soril ma naqar ba nga xam ne duma dund ci metit yàlla ne ma nangul ko ñaanam ma leen di fàttali ne sunu dëkk bi ñu nekk Sénégal am na ñoo xam ne tuddee nañ leen ay tur yoo xam ne dafa am lu muy firnde ci ñoom muy tur yoo xam ne seen waajur leen ko jox wala boog nit ñee leen ko sàkkal am na ay xeet yoo xam ne nit ñi ñoo jóg boddi leen xof leen jàpp ne ay xeet la yoo xam ne xeet yu ñu war a xeeb lañu te ku ci juddu dañ la war a xeeb yu mel noonu nag yàlla sunu boroom di ñu ci jàngal lu bari di ñu ci jàngal jaaree ko ci jëmm jii di yabees yàlla sunu boroom wax ci téereem bu sell bi ci gémmiñu yonentam ci Esayi aaya juróom benn fukk ak ñaar saar ñaar mu ne danaa la tuddee tur gu bees boo xam ne man maa la koy tànnal yàlla sunu boroom di wax foofu ne dana jël nit koo xam ne dafa nekk ci naqar ci mbetit goo xam ne askan gee ko ko teg wala boog dafa juddu mbir mi nekk ci kanamam yàlla ne danaa la génnee ci loolu dugal la ci fi nga xam ne danaa la barkeel bu boobaa nga am dund goo xam ne dund gu bees la gu dëppoog li yàlla namm ci yow li yàlla bëgg ci yow wante du li nga xam ne moom la la nit ñi jagleel yàlla sunu boroom di ñu wax ci téereem bu sell bi ay jaamam yoo xam ne askan yi dañ leen tuddee woon ay tur yu doy waar ku mel ne yonent yàlla yaqub turam doon tekki njublankat bi loolu la tur gi doon tekki bu dee ci nasaraan ñu koy wax jacob njublankat bi noonu lañ ko tuddee woon mu nekk ak yàlla yàlla di ko won di ko won ba bés yàlla taxawloo ko ne ko yow mi ñuy wax njublankat bi tey jii danaa la tuddee Israël mooy ki jaayanteeg yàlla yàlla ne ko danaa la yëkkati léegi jox la tur gu bees njublankat biñ la tuddee woon génnee naa la ci lii laa la tegal ci sa kanam mooy Israël yàlla gi am kàttan ki jaayanteeg yàlla yàlla sunu boroom jël turu Abraham tuddee ko Abraham yàlla sunu boroom jël turu Saara yi tuddee ko Saara ak yeneen ak yeneen yu bari ci téereem bu sell bi soppi ay turu nit tuddee leen tur gu bees goo xam ne day màndargaal li yàlla namm ci ñoom ak li nga xam ne dana ko def ëllëg ci seen dund yàlla sunu boroom dañuy wax ci téereem bu sell bi di wax ak ay jaamam ci kolere gu ñëkk gi ñu koy wax ancien testament ci baatu yonentam Yeremi ci aaya ñaar fukk ak juróom ñeent saar fukk ak benn ba saar fukk ak ñeent lii la yàlla sunu borom wax nee na xam naa mbébét yi ma leen mbébétal du mbébétu loraange waaye mbébétu jàmm laa leen mbébétal ngir may leen yaakaaru ëllëg su boobaa ngeen woo ma wallu dikk ñaan ma ma ndangul leen ma leen di may ngeen daj ma ma leen di tijjil seen wërsëg loolu la yàlla sunu boroom wax nee na li nga xam ne moom la ñu mbébétal ñun ay jaamam du mbébétu loraange déedéet wante mbébétu jàmm la yàlla bi mu ñuy sàkk jàmm la ñu mbébétal wante askan yi nit ñi ñooy loraate ñun ñooy boddi ñun ñooy xeeb ñun ñooy tuutil wante yàlla sàkkul kenn ne ko boo ganesee àdduna kat dama la jagleel nga tuuti ñu xeeb la déedéet moo tax muy wax ci gémmiñu yonentam Yeremi ci aaya ñaar fukk ak juróom-ñeent saar fukk ak benn ba fukk ak ñeent nee na xam naa mbébét yi ma leen mbébétal du mbébétu loraange waaye mbébétu jàmm la ngir may leen yaakaaru ëllëg ba su boobaa ngeen wooma wallu dikk ñaan ma ma nangul leen maa leen di may ngeen daj ma maa leen di tijjil seen wërsëg yàlla sunu boroom di ñu fàttali li nga xam ne moom la mbébétal bépp jaamam bu mu wàccee fii ci kaw suuf bu la nit ñi ne amuloo wërsëg yàlla ne déedéet amal naa la wërsëg am nga wërsëg bu la nit ñi ne kat yow amuloo yaakaar yàlla ne déedéet mbébét bi nga xam ne mbébétal naa la ko mooy danaa la tijjil sa wërsëg danaa yëkkati sa tur danaa la may loo xam ne ku la xool naw la na ma ko defee lay woon yabets yabets ma nga xam ne dañ ko tuddee woon boroom metit boroom naqar te mu dund ko ba ne yàlla ah yàlla aji sax ji boo ma sorilee metit ba duma dund ci naqar yàlla ne ko nangul naa la ko moo tax buñ la boddee nga dugg ci ñëw ci biir nit ñi ñu xeeb la tuddee la tur yu ñaaw yooyu féetale la béréb yu suufe yi xeeb la yëkkatil say gët nga xool ki nga xam ne moo la sàkk moom xeebu la moom boddiwu la moom mi la may nga gane si àdduna moo lay wax naan la maay ki nga xam ne maa lay tijjil sa wërsëg maa lay soril metit ndaxte mbébét bi ma la mbébétal mooy mbébétu jàmm wante du mbébétu loraange yàlla sunu borom di wax ak ñooñu askan yooyu di wax ak xeet yooyu di wax ak nit ñooñu nga xam ne boddi nañ leen xeeb leen ñooñu nga xam ne ñi ngi dund ak naqar goo xam ne mënuñu ko jooytoo fenn ni mu metti woon ci yaayu yabets ba mu ne kii de yabets laa koy tuddee boroom naqar boroom metit mu judd ci màgg ci ba ñaan yàlla ne ko ah sama boroom soril ma naqar ba duma dund ci metit yokkal sama nekkuwaay yàlla dañu seedal naan mujj na yabets moomu moom lañu gën a naw ay magam ay rakkam ay mbokkam yàlla sunu boroom du boddi yàlla jaamam ji mu sàkk jagleel na la lu baax te ku ko tin mu dégg la xanaa kay ñun ñooy xeebaate di boddi di gënale di indi xeet xeet bii moo gën xeet bële diw sàngam dafa mu juddoo moo gën ñële dama lay ni wax ne Sénégal bii ñu nekk am na fi askan yoo xam ne amuñu fit sol seen dàll dugg ci yenn kër yi dañ leen ni xof waruñu fa dugg buñ leen di yàkkal bu ñu lekkee ci ndab lañ leen yàkkal bu ñu paree dañ koy sànni fu ñu jëm ñu ber leen am na mbokk yoo xam ne ñi ngi fii ci kaw suuf ci biir Sénégal bi ñi ngi judd ci naqar nekk ci métit di ko dund te xamuñu fuñ koy jooyee yàlla sunu borom naan leen dégg naa leen gis naa leen te nanaa leen yëkkati moo tax Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist wax ci kóllëre gu bees gi ci injil ci xaaj ba ñu jagleel Macë ci aaya fukk ak benn saar ñaar fukk ak juróom ñett ba saar ñaar fukk ak juróom ñeent lii la Yeesu Kirist wax nee na ñëw leen ci man yéen ñépp ñi sonn te diis dinaa leen may noflaay ñëw leen ci man Yeesu Kirist loolu la wax mi ngi koy wax ci injil ci xaaj ba ñu jagleel Macë ci aaya fukk ak benn saar ñaar fukk ak juróom-ñett ba ñaar fukk ak juróom-ñeent nee na ñëw leen ci man yéen ñépp ñi sonn te diis dinaa leen may noflaay nee na jébbalu leen ci man te jàng ci man ndaxte lewet naa te woyof te di ngeen am noflaay ci seen xol aha nee na jàng leen ci moom nee na boo jébbaloo ci moom boo ñëwee ci moom yow mi nga xam ne sonn nga te diis yow mi am naqar yow mi am metit yow mi ñu boddi yow mi ñu xeeb yow mi ñuy suufeel yow mi nga xam ne wutal nañ la tur goo xam ne foo dem mu topp la Yeesu nee na ñëwal ci man ma teggil la loolu jox la noflaay yàlla sunu borom di la wax naan la mbébét gi ma am ci yow mooy mbébétu jàmm wante bugguma nga loru nee na ngir may leen yaakaaru ëllëg ubbil la sa wërsëg nee na dang ma wut te dang ma daj loolu la yàlla sunu boroom wax yàlla sunu boroom wàccewul jaamam fii ngir mu loru yàlla sunu boroom wàccewul jaamam fii ci kaw suuf ngir ñu xeeb ko yàlla sunu boroom mi nga xam ne bu ñu ganesee àdduna ci coobareem la wàccewuñu fii ci kaw suuf ngir ñu ñuy boddi di ñu xeeb wala ñu ñuy lor moo tax mu jël yabeet su moom nga xam ne la mu wax ci moom bariwul wante mu jox ñu ko muy firnde gu wóor goo xam ne mi ngi ñu koy wax ci digganteem ak jaamam yi nga xam ne sonn nañu am metit ñi ngi leen di boddi ñi ngi leen di sonal ñi ngi leen di tuutil ñi ngi leen di xeeb ba wutal leen ay tur yu ñaaw mu ne yabets lañu gënoon a naw ay rakkam ak ay magam yaayam tuddee na ko woon yabets di wax ne ci metit laa ko juree yabets ñaan yàlla ne ko boo ma barkelee yokk sama nekkuwaay ba yiir ma ak sa yërmande te nga soril ma naqar ba nga xam ne du ma dund ci metit yàlla ne nangul naa ko ñaanam googu kon yàlla leen yàlla sunu borom barkeel mbokki auditeurs yi di leen fàttali nag ne bu dee bëgg ngeen téere bu sell bi yàlla sunu borom jox ñu muy biibal bi man ngeen ma woo man pasteur Ahmed Fall ci sama numéro de téléphone 77 0 74 35 35 yàlla leen yàlla sunu borom barkeel ci darajey Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist moom mi nga xam ne moo ñuy jox noflaay moo ñuy teggil naqar ak metit amin wasalaam
mbokki déglukat yi fii lañuy yemale sunu émission maa ngi leen di sant ci déglu bi te di leen fàttale sunu téléphone di 77 074 35 35 yàlla na yàlla sunu boroom wéy di leen barkeel tey wàcce ay yiwam ci seen kaw ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist mën ngeen jokkoo ak ñun ci 77 074 35 35
الروح